dañu ndaje bi dañ koy rafetlu rek euh, di si gërëm madame la première dame ndaxte samedi bi ak dimanche bi rek bi ñuy tàmbali campagne bi euh, dafa ñëw Kër Mbaye Fall may ñu consultation médicale gratuite euh, mu nekk loo xam ne population dañ ko soxla woon ñu bari aussi feebar bi bari na fi ak tawat ñu bari aussi amuñu ay moyens te lam fi indi keroog samedi ak dimanche bi yaakaar naa ne amul benn plateau médical bu kawe noonu si biir si biir commune de Mbao bi donc euh, mu baaxe ko tamit ñi nga xam mooy mag ñi personne du troisième âge fekk leen ku si nekk sa biir kër euh, faj la consulter la jox la garab yaakaar naa ne laa biir mënul weesu foofu day wane ne mu ngi jàppale borom réew bi si liggéey bi mu ngi dugal loxoom tamit te loolu lépp mënu na ko si bañ a fekk moo tax dañ koy ñaanal taxawaayam moom ak fondation boobu servir le Sénégal lépp loo xam ne ñu koy mbébét euh, yéene ko réew mi yàlla motali seen i seen i pexe su loolu weesoo tamit euh, ñun si loolu lañ tàmbalee campagne bi euh, tey ji ñu dajale profito occasion bi nga xam ne jigéen ñi le 10 bu jot dañuy daje fii si kër gi. sama kër am xaalis boo xam ne dama leen ko joxoon financé leen ko pour ñu liggéey ñu koy séddale seen biir le di su jotee ñu def situation bi ña ñu lebaloon remboursé ñu lebal ñeneen def naa ne ay nit soo leen bëggee jàppale da leen di woo si liggéey te liggéey mooy mun a jëmale réew mi kanam ñu profité nag comme tey jii ñoom ñëpp dañoo daje ma amoon yéene woo leen beneen bis mais nañ ko boole mu nekk benn waxtaan ak ñoom si yan pexe la ñuy tëral. ngir mun a gagner élection yi le 30 juillet pexe yooyu mooy kenn suñu kenn su ñoom bari nañ lool ëpp nañ euh, juróom-ñaar fukki groupement ay responsable lu fi nekk mais kenn ku su ne ku nekk si ñoom mbooloo ba nekk sa ginnaaw nga xool ndax ku si nekk am na kartam nga wut sa liste ñi am carte nga xam ne ñii kat mun nañ yaakaar si ñoom ne ëllëg dinañ dem vote ji ñi amul nga xam ñii kat mbooloo la waaye amul ñu la njariñ kooku liggéey la dañuy natt suñu doole fan la toll su loolu weesoo tamit ñoom ku si di nga dem sa koñ yaa xam kilifa fa nekk kilifa aada kilifa diine yi euh, euh, imam yi responsable association yi euh, ñi nga xam ne tamit daneen yaakaar si gox bi kenn ku si nga dem waxtaan ak ñoom xamal leen ne ñu ngi def délégation pour ñu seet si leen délégation bi da ci ànd ak waa alternative générationnelle vraiment di gërëm seen taxawaay ak monsieur Moussa Diop di directeur général Dakar Dem Dikk mu yebal fii ay ndawam Euh, ñoom Omar Ndiaye ñoom monsieur Seck ak ak Ablaye Seck ak ak Cheikh ñu ñëw fi wax dëgg la rafetal taxawaay bi wax ñu rafet seen disponibilité wane ko ñooñu yaakaar naa ne si cadre benn bokk yaakaar euh, ñoom dañuy gën a dooleel day gën a daal suñu xel te la nga xam ñu ko doon sóob si campagne bi tey dañuy gën a mun a am doole ànd ak ñoom pour liggéey ko kon gannaaw ba leen gërëmee euh, dañoo ñaax suñuy jigéen ñi Euh, ne ñun dañuy ànd ak ñooñu waa alternative générationnelle def ak ak ñeneen ñoo xam ne Awa ak docteur Alioune Diop nga xam ne si ñun lañ bokk ànd ak ñoom wàcc dëkk bi ndax président Macky Sall loolu la santaane nañ bàyyi euh, caravanes yi nga xam ne day indi ay coow meeting yenn meeting yi jaru ko da ngay dépense bu bari mbooloo bu bari ñoo xam ne genn wàll yëpp amuñu ay carte li am solo mooy fexe mu wóor ñu ne suñuy ay militants ñëpp ñu ngi ak seen ba ñu mun a natt suñu doole fan la toll su loolu weesoo ñu waaxu dem ci kilifa yi nga xam ne tey ñoo uf njaboot gi waxtaan ak ñoom naka la ñu mun a jàppalee waxal tamit lan mooy prési euh, programme président Macky Sall ndax bañ ko fi tegee ba léegi si bopp réew bi liggéey na fi liggéey boo xam ne dafa jar nit ñi xam ko euh, am na coono gu bari fitna bu bari loo xam ne tey génn na ko si askan bi am na xéewal bu bari yoo xam ne tamit dugal na ko si askan bi mu ngi tabax réew mi waaye li ñu naan euh, daanu dajul suuf euh, fépp matagul waaye ñu ngi dox jëm fépp foo xam ne loolu manqué na fa tey soo duggee si àll bi mooy li ñuy expliqué jigéen ñi euh, ñoo xam ne dëpp temps Senghor ba léegi mosuñu gis courant ñoo xam ne mosuñu gis ndox moo xam ne mosuñu am yoon boo xam ne sax oto mun na fa jaar tey loolu lépp tey mu ngi si biir dëkk bi ñu ngi naatal àll bi ndax ñu fay yokk mbéy mi jox ay matériel di jox aussi ay ay yeneen jumtuwaay yoo xam ne si allègement travaux des des femmes te ji soo demee si wàllu euh, programme euh, modernisation des axes frontaliers kooku tamit lu bari euh, président Macky Sall yéenam si plan Sénégal émergent am na ay coppite yoo xam ne ñëpp a koy gis di seen bët couverture maladie universelle lu mu sa am Sénégal.

bëgg galankor liggéey bi nga xam ne tey président Macky Sall am na ko ci askan wi te dañ ko war a bàyyi jox ko majorité assemblée nationale mu eggali yéenam. ñi nga xam ne ñooy seen Sénégal ngir bàttuwaat campagne. waaw ñëw Ablaye Wade man dama si am euh, tuuti naqaru xol euh, mel ni la muy def xëy na euh, dañ koy defloo te ña koy defloo yaakaar naa man su doon sama maam la wax dëgg yàlla damay daf may jaral sama bakkan waaye am juróom-ñeent fukki at. ne yaa ngi politique sax bay wàcc si le terrain di part campagne defe naa ku xool Abdoulaye Wade xam ne yan yi mag attantu ko euh, loolu ñun dañ koy méttalu en tant que julit waaye aussi en tant que mu nekk kilifa goo xam ne dafa liggéey Sénégal ba wàcc lépp lu mu waroon def lépp lu mu waroon prouver wax dëgg yàlla def na ko amatul lenn lu muy prouver waaye comme nguuram jeex na euh, ñi fi nekk def naa ñàkk gëm seen bopp ñàkk dooleel seen bopp moo tax ñu wut wàllu dem jëli ko indi ko euh, loolu day wane rek ne ñoom taxawaay bi ñu waroon taxawee matewuñ ko ba mu jarale leen loolu mais suñu xooloon intérêt président Ablaye Wade intérêt njabootam tey jii ñoom du ko duggal si loo xam ne njëriñ la ñoom ñoo koy récupérer waaye du tey Ablaye Wade soxlaatul dara si teraanga soxlaatul dara si ci ay tiitar lan la koy doyati donc euh, ñun daal disposition bi ñu war a jël pour bañ lu ñu bett ndax xam nga élection yi. yaakaar naa ne euh, opposition dañoo bëgg yàlla nattuñu si te loolu def naa du am euh, su tàmbalee campagne am dañ fexe daal li ñuy ñaan président Macky Sall na ko wutal benn ambulance boo xam ne médicalisé la waaw mu topp ko ndax li ma wax c'est très sérieux mag la te am na loo xam ne moom ba muy am sax kattanam doon na dem ba yëg ne euh, dooleem jeex na waxtu maa nag toog na ay at yoo xam ne nekkatul président activité wàññeeku na mag la ñëpp xam ne dafa feebar te ji suñ ko bàyyee di ko seetaan mu dem ba loraa nga dal ko fi dañ naan gouvernement moo ko seetaan wala sax ñu ne ñoom ñoo ko dugal si ñoo ko saboté ñun dañ jël suñu disposition suñu matuwaay wutal ko ambulance wutal ko ñoo xam ne ñoo ngi koy taxawu ba mu mun a def campagne am nam ko war defoon normalement waaw li si des nag coow li defe naa ne indiwul solution comme dañu nekk euh, si démocratie ku ne am nga droit samp sa parti ku ne am nga droit def campagne waaye dama ne ñoo bokk benn maam ñoo bokk yenn njaboot yi benn njaboot famille da ngay gis fukki parti ku si nekk am foo far kon tey su bëggee indi fitna def naa si njaboot gi la ñuy commencé fitna boobu te jaru ko fi ndaxte politique su jeexee tamit ñun ne fiy des donc rek ñu ne euh, nit yi nañ dellu seen xel am sérénité am dal ànd xam ne élection wala politique foofu mu àddina la day jeex ku ne na nga def la nga war a def su paree nga ànd ak sa ngor ak sa dal dellu sa kër ña gañe jiite ña gañewul delluwaat si langue bi rek jéem a góorgóorlu te xam ne yàlla suñ wërsëgalee ëllëg mun nañ jël mbir mi mais 47 partis ñeent fukki parti ak juróom-ñaar yaakaar na loolu c'est pas sérieux si bu toll ni Sénégal loo xam ne 14 millions d'habitants ñu ne 47 partis mel ni parti bu Sénégal da am sa xalaatu bopp. qualifié parti yo xamni ño dugg ci législatif parce que parti ëpp na ñen fuk ñaar ëpp na ñaar témèr lolu da fay melni intérêt yi dafa dafa bari parce que intérêt dañu dañu boole suñu intérêt né dañuy dem ci campagne wala dañuy politique wala dañuy bëgg tawax réew mi yaakaar na né kenn gënu mus kenn ben nit rek wala ñaar nit wala ñet mun ñu créer seen parti ñëpp top seen ginnaaw té lañu bëgg ñu wurk ci parti yoy waye ku ne tawax sa jakk ne man may jité loolu am na leen lu làqu si ginnaaw lu dul vraiment taxawal réew mi waaw c'est moi qui vous remercie